tedd bi ak kàddu yu ñaaw yi ñuy teg ci ndoddu jigéenu Sénégal te tegul ci benn diine waral kuréelu ndaw yu góor yeeg jigéen ñi am taxawaay bu wér ngir jële ko fi lii war a tax askan wi yëpp boole seen doole ak seen gis-gis ngir sàmm àq ak yelleefu jigéen fépp fu mu mën a ne ci Sénégal xibaar bii ambasadu France lëkkaloo ci ak URAT ci ndimbalu projet bu PISCA moo leen koy may. kon suñu mbokki auditeurs ak auditrices ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal di rafetlu bu baax seen ànd ak rajo Afia FM leen koy defee saa su ne ñu ñëwaat seen émission gindeeku ba tey ñuy continuer ci uh, dynamique bi nekkoon dem ci uh, xeex gi ñuy xeex jàngoro coronavirus xam ngeen ko contexte moo ko laaj boobu ba léegi war na mat ñetti weer. sunu réew Sénégal di dund ak jàngoro coronavirus fi mu toll nii nag mu nekk jàngoro joo xamante ni bari na lool lu mu wàññi rawatina si wàllum koom ndax secteur boo dem am na loo xamante ni ci aslëf jàngoro coronavirus wàññi na ko ci yëngu-yëngu yi bokk na ci li nga xamante ni moo di jigéen ñi ak seen i euh, yëngu-yëngoog seen euh, maanaam ci luñ mën a yëngu rek Euh, lii di jàngoro coronavirus am na njeexital goo xamante nii euh, gis nañ ko ci tey nag liñ fas yéene waxtaanee si bile édition euh, si bile émission nga xamante ni. ñi ngi ko ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di waa URAC si suñu lëkkaloo ak waa ambassade bu France li fas yéene waxtaane nag Covid 19 ni mu amee njeexital ci yëngu-yëngu yi nga xamante ni jigéen ñi ñu ngi ci jigéen ñi nag boo leen waxee euh, ëpp na fu leen di fekk fi nga xamante ni moo di ci marché yi rawatina moo tax tey ñuy waxtaan di si ànd ak kenn koo xamante ni si marché la nekk di fa jaay di yëngu bu baax a baax euh, nekk fii si euh, marché Mame Diarra ñu naan ko marché yëpp sa jëkkër nekk fii ci Grand Yoff mu di madame Sow Salimata Traoré madame saw ñu bàyyi la nga nuyu suñuy auditeur ak auditrice asalaamaaleykum Euh, maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp ñoo xam te ñu ngi ñuy déglu. Mm-hmm. ñii yëpp ñu ngi ñuy déglu ñoom maa ngi leen di nuyu. Mm-hmm. Euh, di nuyu waa marché Maam Diarra. di nuyu waa euh, Grand Yoff yëpp. di leen gërëm daal di leen sant daal. jërëjëf euh, madame Sow Salimata Traoré tey yow la ñuy sekk waxtaan bi li ñuy waxtaanee waxoon naa ko maanaam njeexital gi nga xamante ni euh, jàngoroy coronavirus am na ko ci yëngu-yëngu jigéen ñi euh, yow nga nekk ci marché di jaay déjà marché yëpp sa jëkkër marché Mame Diarra yëpp sa jëkkër ji moom lu ko wundu madame saw waaw marché yëpp sa jëkkër gi. dafa di suñu yaay yeeg suñu maam yi. Uh-huh. dañ doon def bu ngoonee ñu génnee seen taabal toog di waxtaan. waaw mm-hmm. ah, di jaay ndànk-ndànk yooyu ak yooyu. Mm-hmm. Eh, nit ñi di ñëw di jënd. Mm-hmm. Eh, ñu tudd si lañ ko tuddee marché maam maam marché yab sa jëkkër. Euh, massa massa yëpp sa jëkkër bi looloo ko indi mm-hmm. waaw ñi dem dem nag ba jëmmi jamono nag marché bi nekk nag marché bu mag a mag a mag wax dëgg neex yàlla mm-hmm. ku la bëgg lu baax rek foofu ngay jaar kon léegi nekkatul benn taabal ak ñaari taabal léegi nekkatul benn taabal ak ñaari taabal soxna si <laughs> léegi kay taabal yu mag a mag a fa ne uh-huh. waaw uh, di wax rek na mbokk yi ñoom it mën nañ bokk si émission bi uh, bu ñu defee 88 628 05 05 88 628 05 05 ñu dugg si biir waxtaan bi madame Traoré jàngoro coronavirus uh, ñu ngi koy dund ci réew mi yéen si marché bi euh, naka ngeen koy dundee. waaw marché bi de wax dëgg ne yàlla ñu ngi koy dund dund bu métti ndax euh, corona bi mu ñëwee daal corona dafa indi ay ay problème jafe yu métti sax la fa indi. Mhm. ndax euh, bi bi ñëwee suñu marché bi dañ ko yëgatee. waaw dañ ko yëgati mooy marché Maam Jaara dañ ko yëgati wax dëgg ne yàlla mhm. moo taxit nag corona bi dafa métti ci ñun lool lool lool lool lool mhm. nag balaa ko balaa sax ñu yëgati marché bi ndax ñu ngi doon dund corona bi ko dund bu métti ndax doo gis sax ku la nee ñaata Mm-hmm. waa euh, dañuy ñëw nit ñi dañuy ñëw pour ndugg si mm-hmm. mais dañu naan bo bo koo ci ne ku la ne lii ñaata nga ne ko fukki dërëm wala cent franc mun la ax war dëgg yàlla wàññi ma ndax corona bi mm-hmm. waaw par bi wax dafa dafa dafa indi bu même boo fekkee da ngay dem jënd bagage sax balaa ngaa xëy fekk ni balaa ngaa yegg marché fekk na nit ñi jënd nañ ba noppi maanaam muy marché Castor loo fa loo fa for ñëw indi boo ñëwee doo ko mën a jaay ndax dafay cher te bu cher itam nit ñi duñ ko jënd nee nañ corona kenn liggéeyatul Euh, jigéen yi liggéey kenn liggéeyul daal. Mm-hmm. waaw corona bi daal indi na fa eh, kii bu métti daal. Mm-hmm. waaw. Euh, ci ci wàllum euh, ñënd moom sax wax ko est-ce que du nit ñi rassemblement bi nga xamante ni dañ ni mën na bokk ci lii lawal feebar bi est-ce que du nit ñi tamit loolu la ñuy daw ci ci ci ci marché yi. waaw dëgg loolu dëgg la tamit loolu dëgg la parce que ñun boo xoolee ñun suñu marché bi ñu koy bi bi corona bi doon commencé boobu yëgatee guñ ñu boobu ñun dañoo jëloon suñu matuwaay bu mat ndax da da nga gis kenn taabal bu nekk da gis koo xam te ne ku nekk yor na siyoom yor omam ak ay ndoxam ndax ku ku ci ku ci jaay ku ne da ngay raxas sa loxo wala ku sa sa client ñoo nga ne ko raxasal sa loxo wax dëgg ni yàlla ñu ngi ci doon def ay jéego yu yu yu kii sax ndax ndax ñu ngi ñu ngi doon yor suñu ndox yor suñuy masque mhm. kenn koo gis si masque bi mooy mu toog ci taabalam dafa yoroon masque am toog di jaay jaayam mais teewul jigéen ñi dañuy dafa mel dañuy ragal ba tey euh, même si bu dee masque yi am na ñi raxas loxo yi mm-hmm. mais dafa am benn psychose boo xamante ni coronavirus daf ko def ci ci ci bopp askan wi mm-hmm. loolu tamit ragal googu mm-hmm. est-ce yi du mooy tey nit ñi par exemple nga gis koo xamante ni dina ndugg lu tolloog ñetti fan téye ko këram euh, li si des mu xool na la koy taaba taaba wax dëgg ne yàlla nag ñun suñu marché bi dëgg la jaay bi doxew doxewul noonu waaye nit ñaa ngi doon ñëw nit ñaa ngi doon ñëw di di jënd par ndànk-ndànk di jëndantu ndànk-ndànk mm. waaye bi ñu waxee na ñetti fan ba ñetti fan la nit ñi di kii si la kii bi commencé nit ñi commencé di dajaloo di dànkaloo mais ñun ñu si boppam ñu ñu di jaay foofu si boppam mm. dañ ko doon bañ mm-hmm. dañuy bañ dànkaloo bi ndax ne dañu duñu bëgg sax nit ki xam nga comme lu ñu doon def bu njëkk bu ni Sénégal dafa bëgg a lambisoo mm-hmm. ku jënd ku ne da taxaw waxtaan ak yooyu mais ñun dañ ko doon bañ sax boo jëndee pare dañu naan ah da ngay fu mu ne nii kii ci yow mm-hmm. eh, corona bi mu indi moo def nii def nii bu ko defee eh, ku bu jëndee day dem mm-hmm. ñu bëri nag duñu nangu taxaw si marché bi sax dañuy jënd day dem seen yoon kon boobu bu ko defee mooy suñu marché bi nag wax dëgg na yàlla ñu ngi doon ñu ngi doon farlu ñu ngi ci doon farlu bu baax a baax a baax wax dëgg na yàlla mm-hmm. waaw yaa ngi wax sànq ni euh, ba corona bi tàmbalee dañ yëkkati marché bi mm-hmm. kon mën nañ jàpp ni instant bi ñu bari si ay jigéen waaye ay ndaw dañoo dem au chômage ñu bari bari bari chômage bu metti sax ndax jeunes yi ñi xam ne dañu doon dañu doon liggéey te jàppale seen waajur liggéeyatuñ fa mm-hmm. euh, maire yi nga xamante ne ñoo doon toog di di foraatu pour yóbbu seen kër da ngay da ngay xool nag marché Mame ay jàmbaar fa nekk marché Mame Diarra ay jàmbaara fa nekk ndax di gis ñoo xamante ne boo ci compté woon fukk yi wala ñaar fukk yi seen jëkkër nekkuñu fi mm-hmm. ñii seen jëkkër gaañu nañu ñoom ñoo yor xale yi mm-hmm. ñii seen jëkkër ñi ngi fi mais loxoy jotewul gannaaw mm-hmm. ñoom ñooy toppatoo xale yi ñooy fay fay l'école école xale yi ñooy fay seen néegi ñooy fay courant ñooy fay ndox macha allah marché Mame Diarra ay jàmbaara fa nekk te nag ay intellectuel ñoo fa nekk nag ndax ku leen ku ñëwoon foofu tey dékk dékk leen sa sa micro dinañ la wax lu leer ndax ay jànqat ñoom ñëpp ñu si gën a bari dañoo jàng mais nag situation moo ñu fa teg situation moo ñu fa teg ndax bu fekkee ne amoo amoo loo amoo leen si leen loo jëm dangay jàpp li nga xam ne moo fi sës waaw ay jàmbaar ñoo fa nekk léegi euh, seen seen néeg yeeg seen école xale yeeg yooyu yëpp ñoom ñoo seen ñoom seen dodd la tegu dañuy jaay fii dem fay dem fay seen seen école xale yi mm-hmm. dañuy jaay fii dem fay seen néeg yi mm-hmm. ñooy fay courant yi mm-hmm. ñooy fay ndox yi suñu seen site euh, lépp loo xam ne seen soxla la ñoom ñoo koy dox rawatina ñi nga xamante ni euh, dëkkuñu ndakaaru wala seen njaboot nekkuñu ndakaaru dañuy liggéey di di di yónnee dëkk ba kon euh, ñàkkul ni tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si dëkk ba seen njaboot nekk fii ñoom it ñu ngi koy subir bu baax ñu ngi koy subir bu baax ñu ngi koy subir bu baax ndax ndax ndax dangay ngay xool liggéey amatul tëj nañu bunt yi pour nga yónnee sax c'est tout à tout problème. Mm-hmm. ndax euh, marché bi doxul. Mm-hmm. Euh, ñu ngi koy subir bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ndax ay fii nag ay xale góor ñoo fi nekk xale góor yoo xam ne yu dynamique nag xale góor yoo xam ne dañuy liggéey rek pour ñë pour seen par parents yi pour seen jabar yi nga xam ne ñoom ay fëgg jaay. ay jàmbaar lañu. dañu fi nekk dañuy lal xam te dañuy am na ñoo xam dañuy jaay jën di yónnee seen waajur yi am ñoo xam dañuy jaay ay ndugg di yónnee seen waajur fii wax dëgg ni yàlla mas maam Jaara ay jàmbaar dong ñoo fa nekkoon wax dëgg ni yàlla Mm-hmm. di fàttali mbokk yi rek uh, ba tey ñuy wéy ak yéen seen uh, émission bi nga xamante ni ñu ngi si ànd ak ñi di waa uh, PISCA ci lëkkaloo bu URAC di rajo di kuréel gi ëmb rajo communautaire yi nekk ci Sénégal ak ambassade bu France tey nag li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee mooy jigéen ñi. Euh, ban njeexital la seen euh, euh, liggéey am si jamono joo xamante ni coronavirus mi ngi lëmbee àdduna te ñuy dalal nag ki nga xamante ni moo di madame Sow di Salimata Traoré yéen it mën ngeen def ngir mën a bokk si waxtaan bi moo xam ngay jigéen ci bépp activité boo xamante ni ci nga nekk rek am nga wàll si émission bi nga wax ñu nan ngay dundee eh, coronavirus bi ak li nga xamante ni moo di sa liggéey bi nga xamante ni si nga nekk nekk ban njeexital la ci am lan nga si dund ak lan nga yaakaar ni tey buñ ko tegoon dina nekk ay solution ba kenn du am benn jafe-jafe doonte ni sax coronavirus jamono euh, dina dem euh, ba ba jeex fi kon madame saw bu ñëwaatee rek si si yéen seen i activité euh, marché Mame Diarra wax nga ko jamono bi coronavirus amee dañ ko dakkal ñenn yi dem au chômage Euh, yow nga euh, nekk yor GIE ba fa ba fa nekk jamono yi ban euh, stratégie ngeen teg ngir jigéen ñi wax dëgg yàlla ñu am si lu nu yëngu waaye duñ def lu dul d'abord jël ki nekk si ligne bi doogay continuer allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. délégué marché bi yokkal baat bi tuuti rek ñu déggante. délégué marché Mame a siiw ci yëpp délégué marché Mame Diarra ñu ngi lay déglu euh, sëñ bi ñu ngi leen di siyaare di nuyu koo ngeen dalal noonu di kontaan ci jotaay bi mm-hmm. di jaam mbégte bu baax a baax a baax mm-hmm. gannaaw suñu mbégte ñu ngi leen di nuyu yéen waa marché Mame Diarra yëpp ñoom Aza Coulibaly ñoom Mame Diarra ñoom ñi nga xam ne ay gaynde lañ mm-hmm. sim que ñoom xadi wan nga xam ne ay gaynde lañ ñoom ci marché bi lañ ne lépp luy avancé loo marché bi lañ ñu ngi ci suba ba ngoon ñu ñëm ñu ngi leen di nuyu gannaaw nuyoo boobu nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne marché Mame Diarra jamono bi ñu toll nii dañoo am benn problème mooy dañ leen a yëkkati yëkkati bi ñu leen yëkkati nag dañ ñëwoon dañ leen di yóbbu marché bu mag mais xajuñ fa ndax marché Mame Diarra deux cent personnes moo fay xëy par mm-hmm. léegi nag bi ñu bi ñu euh, monsieur le maire yëkkatee nag na euh, solution lay jël mooy dugal ñu marché marché bu mag marché bu mag euh, bi ñu ko recensé dafa mm-hmm. nekkoon trente table ci lay toll mm-hmm. gannaaw 30 taabal yooyu am na ñenn ñi ko joxoon ci waa marché Maam Jaara mais ñi moom taabal yi dañ ne ñoom seen taabal ñoo ko moom monsieur le maire moomu léegi nag ñoom ñooy xool ku leen doy ñu luye ko ko waaye duñ ko jox ku leen neexul. Mhm. léegi nag loolu indi semence bu diis a diis boole koog marché Maam Jaara ci ñi boo booy jaay euh, wax wu ne ndaw yu miir day ñëw di nangu sa jën na dañ leen tere jaay fii. Mhm. léegi nag a ah, ah, monsieur le maire ñu ngi ñaan nag mu dawal yërmande ay jigéen dong ñoo fi nekk di jaay kaabal yi ñu doon lal itam bàyyi nañ ko léegi ay plate lañ yor di di jaay bu ñu bu ñu wàccee yóbbu seen plate seen kër bale foofu ba mu set programme boobu lañ jël ngir jéem seen négocier ak monsieur le maire mhm. lañ ci tollaale. Mhm. waaye ñu bëri na prix yi liggéeyatuñ. si bëri seen location seen dépense. seen xëy xale yi jàng ak yeneen ak yeneen. Mhm. loolu yëpp ci marché bi lañ ko doon génne. Mhm. waaye est-ce que yéen a ngi si dox ay ay jéego di euh, jéem a dem ci mairie ba di waxtaan ak ñoom. waaw dem nañ fa ñaari yoon xam nga nee naa la mairie moom ut loolu nañu solution nee maanaam dama leen dugal marché bu mag. Mhm. am ñoo xam ne dama leen yóbbu marché marché marché monument. mais marché bu mag nee naa la 30 taabal lañ fa amoon 30 taabal yu am na ñoo xam ne demoon nañ ba jël ko mais dañ leen ne. saabal yi ñu jox leen nii monsieur le maire ko ñun ñoo ko moom ñun ñooy xool ku ñu doy ñu jox ko ko mais ko jox ko yaa may dégg. maa ngi lay dégg bu baax sëñ bi. waaw léegi nag ñooñu ñu si bëri su ngeen waxee loolu comme ah, alal moom boromay gaynde ga ñoom dañoo mujj reculer ay boromi taabal saabal i taabal ñu xool ku leen doy yaamal ne ku leen doy jox leen ko. Mhm. waaye ak jamono ji nga xamante ne ñu ngi si xeex bi ñuy xeex jàngoro yi coronavirus. yéen jamono ji seen seen seen i activité mën nañ wax ni lépp taxaw na déjà ah, marché bi taxaw na bu baax a baax a baax mhm. liggéey ci njàqar bu métti métti lañ nekk démb démb rek am na lenn ci waa marché bi ay jigéen yoo xam ne demoon nañ ci monsieur le maire mhm. mais soo luñ koo gis ci topp si moom lañ gis kooku nag wax dëgg yàlla daal na seen xel mhm. ndax monsieur le maire moom wax wax dëgg yàlla saa su fa demee danañu recevoir wax ñu li nga xam ne ni moo ko naqari ci marché bi ak maanaam ñi nga xamante ni ñoo koy attaqué di ko bind ay leetar xamal ko ne ko marché bi foofu mu nekk noonu neexut ñu dëgg mhm. la nag marché bi dafa màgg ba yegg si bi mhm. bu mag moo màgg ba yegg si foofu mhm. di jël leet yi kon mën nañ jàpp ne marché bu mag dafa fees euh, ngeen dem marché Mame Diarra marché bu mag dafa fees di màgg jël mbedd bi di màgg jël mbedd bi noonu te foofu noonu ñu mujj nekk xam nga jigéen ñi fu ñu yàgg rek def fa ay mbootaay yu mel noonu ak ay nappal yu mel noonu dëgg la su ko defee nag ñoom ñoo mujj nag jël turu marché marché yëpp jëkkër googu def ko marché maam jaara ñu ne gannaaw bi ne màgg na duñ mhm. ko tuddee yëpp jëkkër ndax suñu suñuy bees lañ fiy jaay mhm. dugg mu bees lañ fiy jaay mhm. te ñi fi nekk ànd nañu bokk ndey ak kon jot nañu changé tur bi ndax tur bi neexatul leen marché yëpp jëkkër neexul leen dañ ko def marché maam jaara am na solo waaw kon am na sawar ko ndax fii si marché bi laa ne waa laaj bi rek mooy euh, jàngoroy coronavirus maanaam si seeni i euh, euh, wàllum activité tey bu jàppoon ni daawoon ngeen wàcc ak par exemple benn 1000 francs ba kii bi ba mbas mi dugg see ba léegi est-ce que seen chiffre d'affaires am na lu si wàññeeku. wàññeeku na bu baax baax ndax maanaam ni doon toog di jaayee toogee duñ di jaayee ndax suñu xel dalatu. Mhm. Ah, mu mel ni ah, daw na kon ñu xaaraat ah, keneen koo xamante ni mi ngi ci marché bi ñu jël keneen madame Sow mu mel ni jamono ji gars yi moom seen yaram commencé na tàng. <laughs> seen yaram tàng na bu baax tàng na bu baax mi. <laughs> allo waaw soxna si noo def. waaw maa ngi nii rek ziar naa bu wér. ça va. ça va noo tudd. man la maam Ngoore Mbaye. marché yëpp sa jëkkër. maam maam Woré ñu ngi lay déglu si euh, euh, li nga xamante ni mooy sunu thème tey maanaam li ngeen di dund si marché Mame Diarra ak mbas mi nga xamante ni moo nekk ci réew mi. billaay li ñuy dund metti na lool. Mhm. mbas bi dee moo waral lii ñu amaale occasion. Mhm. yëkkatiwaale ñu. Mhm. bi ñu bi ñu yëkkatee boobu ba tey mënuñoo fexe ba toog marché yëpp toog nañu. ñun boobu ba tey mënuñoo fexe ba toog. di gërëm nuyuwuma sax sali. nuyu ma xaar ma nuyu sale ba pare sax. <laughs> maa lay fay chéri Coco. <laughs> ah. <laughs> maa lay fay maa lay fay. chéri yaa ngi ci jàmm. maa sant bu baax. kontaan nañu. jërëjëf. yal na yàlla def jàmm. amin amin amin amin. te booba tey toogoo taxawoo. Eh, benn la ñu bokk. yaa xam li nga bëgg yal na ko yàlla defal. amin amin yàlla yeggale yépp waaye si kàttanu yàlla. amin amin amin. allo amin amin amin amin alors mhm. billahi mars bi sonn rek la def mhm. ku ñu jàppale rek ba ñu tooyaare lañ bëgg mhm. ndax lu gën fii eh, yéen fi nii fi mu toll nii bi yëkkati nañ leen nan ngeen di dundee da ngeen toog seen i buntu kër di jaay wala nan ngeen di def ñun ñooñu waat fii ñooñu waat ci marché bi di daw di daw ramasse bi rek waaw ñooñu si biir marché bi di daw ramasse di dàqante ñoom rek duñ leen séenee xam nga ay mag lañ. waaw daan doole rek ñu tax a jóg dimbale suñuy njaboot suñu boroom kër. Mhm. duñ leen séenee di dàqanteeg ñoom. Mhm. di ñaan rek Papa Diop mu dimbali ñu rek ñu dem laay ndax ñu toogaat ba mu am fuñ ñu def ñun ba ñu ñoo dem. ah fu ngeen fu leen yóbbu daal ngeen bëgg. waaw waaw. waaw yàlla baax na. yàlla baax. waa kay jërëjëf jërëjëf ñu koy euh, jaajëfal moom it di woote fi nga xamante ni moo di marché Mame Diarra soxna Salimata kon mu mel nii euh, mooy jafe-jafe yi nga doon wax léegi rek euh, ak soxna ak ñi woote mu nekk loo xamante ni luñ confirmé la bu baax a baax ci jamono ji nga xamante ni Sénégal mi ngi xeex jàngoro coronavirus mm-hmm. ngeen di dund jafe-jafe yooyu kon am na ku nekkaat si ligne bi ñu jël ka ah, allo mbokk mi allo mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si noo tudda fooy wootee. Eh, maa ngi woote Grand Yoff. Grand Yoff tur bi. man maay yaay Salimata Dieynaba Traoré. Dieynaba Traoré maman ni ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw ne ko maa ngi maa ngi nuyu madame di ko sant. Mhm. ne ko marché bi bu mu jóg ba léegi. Mhm. jigéen yi jaayatuñu defutuñu dara dañuy wari wari bu ñu ñëw teg seen jaay maam yi ñëw ramasser ko def ko ci woto bi di ko yóbbu. metti na. ñenn na amuñu lu ñuy toggo mhm. amuñu lu ñuy naani mhm. amuñu location pour fay amuñu pour fay seen i école yi mhm. amuñu xaalis lu ñuy dundal seen i doom yi marché bi lañu koy am léegi dañoo ñaani ñu may leen njëjjake taranga na wutal leen fu ñu war a nekke ñu may fu ñu war a delloo seen i place bu def loolu dina baax marché yu bari ñooy nekk marché fii yabu jëkkër bi amuñu dépense yi seen jëkkër yi liggéey wuñu xëy wuñu wontuñu surtout kay location li mbali jëkkër la ñuy nekk dégg nga ku yërmande ci kooku borom na kattan yàlla ak yonente na yërmande yàlla ku yërmawul di wul ci kooku tam borom na ah yàlla de moo xam soxna si waaye na man dool loolu kàddu boobu dalaa mën a am na sànni ko ci biir mhm. waaw jërëjëf ma àq na jërëjëf jërëjëf ñu ñaani yàlla ak yonite na na yàlla feebara bi jóge ci jàmm mhm. ñu delloo ci fu ñu ne woon na ñu delloo si fu ñu ne woon fu mhm. noonu loolu laa ñaani ci loxo yàlla jërëjëf jërëjëf Euh, ñu koy jaajëfal moom it soxna soo soo dëgg yàlla euh, am na solo jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jun si marché ba waaye it euh, waxtaan bi ba tey dañ koy accès si li nga xamante ni moo di euh, bu ñu toppee bu ñu toppee euh, téléphone bi yaakaar naa madame Sow duñ waxtaan waaye ñu bàyyi téléphone bi tuuti rek euh, wéy ci waxtaan bi ak jamono ji nga xamante ni gis nañ yéen jigéen wax dëgg yàlla jàmbaate bi nga xamante ni moom ngeen moom ngeen jàmbaar rawatina si marché yi ba fa duggee góor ñi ñu ngi fa waaye booy xool majorité bi ay ay jigéen lan tey bu ñuy wax problème bii di maanaam genre danaan jigéen kër yi góor ñi ñoo ko yor te amaana booy xool ñi gën a farlu ci ci ci njaboot gi wala ñi gën a farlu ci li nga xamante ne mooy li ñu yóbbu kër ga tey jigéen ñi la nan nga gisee ñi xalaat ni tey góor ñi ñoo yor kër yi alors que jigéen ñi ñu ngi bay seen waar luñ mën euh, soxna si jërëjëf ci la euh, laajte bi ma laajte ndax loolu dama ciy kontaan sax loolu dama ciy bëgga a dama ciy kontaan tontu mm-hmm. ndax boo xoolee kër yi kër yi maanaam bu ñu nee bu ñu nee ñaar a ko yor mm-hmm. dëgg la ñaar a ko yor waaye li jigéen di def mm-hmm. li jigéen di def ci kër yi fu ñu ne ne fu ñu ne nii mm-hmm. góor defu ko ci kër yi jigéen ñi da ngay xool jigéen ñooy xale yi ñooy ci marché yi dem jaay bu ñu jógee ci marché ñoo ñëw indi li ñuy jóg li ñuy jëlee ci marché bi la ñuy jëndee si ñooni ndugg ñëw taal ñu taal añ taal reer kon jigéen yi li ñuy def foog naa góor ñi mënuñu ko jigéen ñi ñooy tàggi seen natt man mi yor naa natt un million un million ci biir marché bi kenn ku nekk teg nga sa natt dix Mm-hmm. kenn ku nekk teg nga un million un million fu ko fenn ci famille bi lañ ko dugal ci biir kër gi mm-hmm. ci biir kër gi lañ ko dugal mm-hmm. ci njaboot bi lañ ko def ci suñu góor yooyu lañ ko def kon bu ko defee bu ñu ku ne jigéen liggéeyul moom da ngay wax lu la neex waaye jigéen yaa ngi liggéey jigéen yee yor kër yi amaana ñi ngi liggéey loolu kenn weddiwu ko mais euh, le fait ñu bëgg jël taxañ lépp rek euh, jox ko góor dëgg la di diine moo jiital góor loolu kenn mën ko fi jëlee mais loo xamante ni mooy li naan problème genre maanaam Euh, góor ak jigéen teqale yemale gi leen di jéem a yemale alors que euh, comparaison bi warul demee noonu le fekk à chaque fois ñu bëgg jël góor rek teg ci kanam jël jigéen teg ci ginnaaw euh, na ngeen stigmatisation boobu en tant que femme na ngeen koy dundee. waaw ñu ngi koy dund dund métti waaye nag loolu yàllaa leen ko cërale góor ñi yàllaa leen cërale loolu. Mm-hmm. moo leen cërale ne mu jigéen da nga war a wuy ci sa. Euh, euh, waaw borom kër. Mhm. waaw waaye nag jamono buñ ne ni. Mhm. dafa di ne euh, dëgg la ñu ngi ciy wéy. Mhm. mais nag li ci gën a bari loo xamante ne famille bee ko war a yor góor gee ko war a def ci biir kër gi jigéen yee ko fay def nañ ko na nañu nangul jigéen ñi loolu nañ ko nangul jigéen ñi. ndax ji jigéen jigéen moom amul leen lu mu këram jigéen amul leen lu mu këram lu mu jëlee mbedd ba lu mu jëlee ci liggéeykaay lu fu mu ko jëlee fu ne ci biir kër gi la koy indi mais bu ko jëlee ci liggéeykaay bu ko bu ñëwee dina la jox moitié waaye moitié am feneen ko yóbbu kon bu ko defee nañ nangul la jigéen nañ nangul ne jigéen ñi ñu ngi liggéey di ko indi ci kër mhm. góor ñi nag wax dëgg na yàlla jigéen yi góor yàllaa leen ko cëralee nañ ko nañ nañ nangu loolu nañ nangu loolu waaw mhm. euh, di fàttali rek ba tey ñi ngi amal émission bi si lëkkaloo ak bu ak waa ambassade bu France ak waa URAC di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb rajo communautaire yi nekk ci Sénégal tey nag li ñuy waxtaane mooy njeexitalu coronavirus euh, si yëngu-yëngu jigéen ñi rawatina jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk si marché bi ñu jël ki nekk si ligne bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. waaw naa def. sant bu baax noo tudd ak fay woote soxna si. waaw allo waaw. waaw noo tudd. Oumane Mbengue Oumane Mbengue. Oumane Mbengue uma soxna Oumane Mbengue yow am nga yëngu-yëngu booy def jamono ji nekk jàngoro coronavirus nan ngay dundee ak say euh, activité bi nga nekk. métti rek ay fi nekk daan suñu. Mm-hmm. di ñu ko ko ñaanal may ñu ko ci daraja Mohamed ñu ngi gërëm pale bi toog foofu nag ak yéen seen waa ji Afia bépp bu jërëjëf waaw jërëjëf euh, di ko jaajëfal moom soxna Oumani euh, intervention am na am na solo uh-huh. soxna Salimata ñu bàyyi la nga nga wéyandil waaw waaw gis nga jolu yàlla mu la laa wax sànq yàlla lañ ko cëralee mm-hmm. waaye tamit ñoom dem nañ nangu ne nañ nangu ne ñun tam ñun jigéen yi am na lu ñuy def ci biir kër yi mm-hmm. bu ñu ko góoril nangu rek kër gi day ne na soxna si allo yi allo. waaw allo maa ngi leen di dégg. waaw soxna si nuyu nan la. man la soxna Diarra Diouf. soxna Diarra Diouf. waa maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. di leen gërëm di leen mhm. sant. Mhm. Sali moomu toog na maa ngi koy beral yoo jigéen ju man góor la. Mhm. yërëm na ñëpp. Sali yërëm nañu xam na fu ñu teg. man na sama xol a fees. ñun sonn nañ. dee nañ tàyyi nañ mm-hmm. suñu mairie bi day yebal ay asa bu ñu ñëwee jël xaasu pul fuuta yi di ci liggéey mm-hmm. jënd ci jën bu ñu ñëwee nanguy suñu palaat yóbbu mm-hmm. suñuy jën te duñu xam fuñ koy yóbbu bu ñu ramassé jën yi dañuy dem mairie waa mairie yi nañu egg guñ fi dañuy jël suñuy jën di ko ñun na dee nañ tàyyi nañ sonn nañ ndax kuy leb xaalis di ci liggéey ñu koy nangu boo xëyee nga dem wutiwaat waat ñëw xam nga ni njobootala teye mm-hmm. amuñu pexe waaye bu ñu amoon pexe xam nga mm-hmm. duñuy dem di leb xaalis ñëw di ko teg ñu koy nangu ñuy wuti waat mm-hmm. fi nii bu ñu sonnul rek duñu sonn foofu lañ toll ndax dëkk bi metti na suñuy jëkkër yi liggéeyuñ ñu ngi tiim suñuy doom bu ñu xëyee sax duñu am ndekki bi ñu leen di jox ñun na ginnaaw yàlla jàppale leen te yàlla tax ngir yàlla ak yonent te bi ngeen jàppale ñu. amuñu fu ñu dugg. Mhm. sonn nañ. Mhm. dee nañ tàyyi nañ sale na ñu ngi koy gërëm di ko sant. Mhm. yal na leen yàlla fay. amiin amiin yal leen yàlla fay. amiin amiin amiin di ko jaajëfal kon Sali ñu bàyyi la rek ah, nga soufflé tuuti ñu daal di dem ah, jël benn stop benn spot daal di ñëwaat ah, ci émission bi. li ma wax. que j'ai fait. Ah, kon mu mel ni Sali balaa ñuy jël sport bi ñu euh, jël ki nekk si ligne ba pare allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. Euh, Mouhamadou Mamour Niang. Mouhamadou Mamour Niang. waaw. Mhm. ci marché bu ndaw boobu laa nekk ñu koy wax marché Mame Diarra. Mhm. ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen ndokkeel di leen baalu xaq. Euh, ñu ngi lay ziar sëñ bi yow yàlla def nga dugg ci jamono joo xamante ni dañuy euh, wax wàllum euh, jigéen ak góor ak seen jàmbaarte. am ñu bari ñoo xamante ne dañoo gis ni kër ñi daal góor ñi ñoo ko yor bëgg néewal doole wala bëgg ñàkkal fayda jigéen ñi. la nga gisu loolu ak njàmbaarte jigéen ñi maanaam seen taxawaay ci kër yi noo ko gisee. jamono mooy man dama yëngu ci wàllu commerce maa ngi ci ci marché bi. Mhm. waaye jigéen ñi daal amu amul royuwaay. Mhm. jigéen ñi. Mhm. jigéen ñëwoon démb. jigéen ñi a ci lislaam. jigéen ñi noonu lañ taxawoo. bëri nit ñoo xam biñ doon nii ñii seen jëkkër liggéeyatu. ñii seeni borom kër génn nañ àdduna. ñooñu doo nga nag dañu ñaan rek. allo allo ah, oui sëñ bi ñu ngi déglu. ñun nag dañuy ñaan rek. Mhm. ndax euh, jigéen ñi amul seen pay. Mhm. parce que li tax amul seen pay moo leen jigéen bu nangoo daan dooleem. mënoon mhm. def leneen defu ko. xanaa di daan dooleem ngir lu mu yóbbu ci njabootam. kooku damaa yaakaar ne ku ñëw ku nekk da nga kaa war a jàppale. te war leen man gën a bàyyi xel. ndax jigéen ñi te neexul ba neexul waaye kër ñoo ci man. buñ fi nekkutoon mu ñaaw. ñoor lañ ci tubay. ñoor nag bu nekkul ca tuba tuba ji dootu rafet wala nga xam ne foo toll di nga meebu waaw jigéen ñi ñuy jàppale guddi ak bëccëg muy sama soxna ak soxna si keneen ak keneen ak fu jigéen fu góor bu baax bu nekk fu nekk mhm. buñ naan diw jigéen bu gën jigéen bu baax moo nekk ci gannaawam bi ko puus moo tax mën a dem mhm. ñu ñaan meer mu gën ñoo may ndax comme que bëgg nañoo dem fee mais ñu ñëpp xajul te mhm. yàllaa ñu xas ci ba boole boole gi ñu yàlla boole nag euh, amul leen lu ci ñaaw ndax li tax ñaawut moo leen mën nañoo bokk fii ci marché bi lekkandoo mën nañoo bokk fii ci marché bi waxtaanandoo reendoo kafandoo ku ci xewle ñëpp loolu nag wax dëgg yàlla yomb ba tax na ñun daal waa marché bi yëpp ñu ngi sant waa koñ waaye di ngi sant jigéeni marché bi mm-hmm. am nañ taxawaay bu rëy rëy rëy rëy mm-hmm. ndax jigéen moom sa waay bu euh, mënoon def leneen comme li comme li ma wax rek mënoon def leneen defi ko defi wu ko xanaa di daan doolem rek ñu leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla suturaal su fekkee seen njëriñ njaboot ñoom jigéen yëpp mhm. te li moom too foofu nag jàmbaar ju mën góor la mhm. ndax bëri na loo xamante bu doon góor la sama yaay daan wax jigéen bu doo taxaw naan bu ma doon góor dinaa ko faj mhm. waaw ndax mooy takk subay ñaar loxo mooy takk séet jërëjëf kon bu jigéen taxawee takku doon benn mm-hmm. di defar guddeeg bëccëg lu fi baax ci jigéen ñi lu baax ci marché jigéen ñi la bëri na ñoo xamante ni maa ngi bëri ñoo ñoo yam ñaar téeméer lañ joxe dépense wala ñetti téeméer wala ñeenti téeméer te ñeenti téeméer xam nga ne amul sax jën yu baax ñoom ñooy dugg sa génn seen taaba taabu yi ñuy def seen géej lii ni jaay moom la ñu mottalee suñu dépense mm-hmm. marché loolu nekk muy ñi muy kaan ak ñuy sa xalaatu di daw dépasse doo nga fi nekk ba tax ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant euh, di ñaan yàlla seen rajo bi yàlla na ko yàlla yokk mu jëm kanam bu baax a baax a baax a barke yonent bi sallallahu alayhi yàlla ci rajo yi nga xam dañu jël fee te bañ a ci rajo yi nga xam ne ñooy nekk ci gannaaw waaw da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin di ko jaajëfal moom sëñ bi bu baax a baax Euh, ci intervention bu am solo boobu nga xamante ni def na ko kon euh, soxna Salimata mhm. lu ñu def rek lu dul dem euh, jëli sunu spot ak sunu partenaire le temps que nga soufflé tuuti ñu ñëwaat si si waxtaan wi. bedd bi ak kàddu yu ñaaw yi ñuy teg ci ndoddu jigéenu Sénégal te teguwul ci benn diine waral kuréel yëpp ëmb ndaw ñi jigéen ñeeg góor ñi war a am taxawaay bu wér. boole seen doole ak seen gis-gis ngir sàmm ak yelleefu jigéen fépp fu mu a nekk ci Sénégal waaye it jële fi ba faw lii di beddi beeg boddi bi xibaar bi ambassade bu France lëkkaloo ceeg URAC ci ndimbalu projet bii di PISCA moo leen koy may kon euh, mu ngi noon euh, sunu euh, sport ak yi nga xamante ni moo di waa Pisca mi ñi lëkkaloo jëm si bile émission ànd ak waa URAC di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb rajo communautaire nekk fii Sénégal ak ambassade bu France tey li ñuy waxtaanee. moo di njeexital Covid 19 ci euh, yëngu-yëngu jigéen yi nga xamante ni ñoo nekk si marché yeeg du si marché yi sax euh, peut-être kin dalal marché Mame Diarra nekk mais tamit si mbedd yëpp jigéen ñi mën nañ woote euh, ñoom it daal di joxe seen gis-gis si li nga xamante ni mooy di Covid 19 ni mu laalee seen yëngu-yëngu am na ko nekk si ligne bi ñu jël ko allo mbokk mi kooku daw daw na soxna Salimata kon mu mel marché Mame Diarra ñu dynamique comme ni nga ko waxee woon rek ñoo fa nekk. Mm-hmm. ñu jël ki nekk si ligne bi d'abord allo mbokk mi. allo. allo oui sëñ bi. na nga ziar bu wér. delloo ziar. na ngeen def waay. sant alhamdulilah. noo tudd ak ah, ah, jaay ko café Touba marché yab sa jëkkër. da ngay jaay café gi fa mel ni gars yi jamono ji est-ce que abu xaw ñu daw aslëf ndax oh, oh. Euh, wàllum cet geeg yu ni mel ak jàngoro ji nga xamante ni moo nekk ci biir réew mi. waaw dëgg la xaw nañ ko xaw nañ ci dal daw af af lëf sax mënul ñàkk waaye nag dafa nekk loo xamante ne xam nga café Touba moom mesure partie bi mooy mhm. euh, da ngay xel ci kaas nit ki mu dem mhm. waaw da ngay jox nit ki kaas rek mu dem bu fekkee kaas yoo xam ne sax dañ koy bokk ñu mën a wax mais comme da ngay xel jox nit ki mais mais dafa la loolu <laughs> lañ mais xëy na café dafa ci nekk loo xam ne presque day mel ni rek boo teree café di nga tere jàkkatu mhm. te pourtant jàkkatu ndékki bi ñu ngi jaay waaw boo ko xoolee foofu rek da nga koy comparé waaye café daal côté boobu daal effet bi de fa noonu daal booy xool parce que mhm. boo xeele café jox nit mu dem te pit lu lu tàng am na médecins wax naan bon lu tàng di naan lu tàng souvent ndax virus bi ñemewu ko mhm. moo tax sax côté boobu xëy na mënuñu fa daanu daal à cent pour cent mhm. waaw léegi dama bëggoon ñëw ci côté euh, marché marché Mame Diarra bi ñu déglu waaw parce que euh, maire la ñu wax nañ ne maire bi moo jëloon moo jëloon moo jëloon décision pour pour débarrasser. Mhm. allo allo. allo yi ñu lay dégg bu baax a baax sëñ bi. voilà léegi euh, moom dafa waxoon ne ci ay jëmm jamono parce que moom sa dégg benn réunion bu délégué demoon def foofu ca ca ci ci maire bi. Mhm. mu ne defee mu ne day xaar ba am suite ñu ne bu ñu amee suite bu mu leen yóbbu ñu leen fii yóbbu leen foofu. Mhm. parce que dégg nga sànq ci biir wax yaa ngi dégg ñu ne deux cent personnes ñoo fi nekk di jaay mhm. sans compter ñi nga xam ne ñu ngi ci magasin boo xool waaw mhm. actuellement nii bon fay ñu juuti def ñu dara te da ngay xool bu ñu daan deux cent personnes bu ñu dagg juuti bi ci seet ko c'est de l'argent mhm. yaa ngi dégg waaw euh, deux cent personnes bu ñu génnee ju xam nga sax léegi boo xëyee un beau jour bëgg a éliminer donc am na benn budget boo xam ne foofu daanaka perte pour man pertement lay doon donc jàppale comme li mu su boobaa ñu ne waa marché yëpp xëy na ñoo bañ a dem parce que ñu bëgg a yóbbu xajuñu fa ay deux cent personnes boo leen dugalee mag xajuñu foofu mhm. waaw genn wàll bi yëpp xajuñu foofu parce que liñ la li la délégué bi wax moo ci ne boo xool benn trente trente place deux cent personnes xajuñu fa ñeneen ñi dañuy dellu si waat mhm. loolu euh, li ñu leen expliqué nii que sa affaire sa bi noonu la fa demee léegi maire bi moo jël décision boobu dafa na waxoon ne bu amee site bu leen yóbbu mais comme amul site bu leen kon waroon leen mën a jaay ba keroog ñu am site ñu bàyyi ñooñu ay ay daan doole ñoo fa nekk mhm. marché bi de bout à bout ay jaay daan kekk ñoo fa nekk waroon na leen yërëm ci côté boobu waaw ah, man man foofu laa man foofu laa gisee mhm. mais nu mu bëgg a doxalee nii alors ñi indi ay nit bisu set kaay leen di yëkkati ni ñi ñuy dem dañu bu yàggee sax loolu day day niru leneen mhm. am na solo ñu koy sant daal mhm. jaajëf ñu koy euh, jaajëfal moom it si intervention bu am solo boobu ak euh, wàllum Ndiakafé Touba bi nga xamante ni si la nekk même jigéen ñi ah, am na ñoo xamante ni soxna euh, Salimata ñi ngi yëngu ci mhm. wàllum jaay café café café Touba mhm. ñu jël ki nekk si ligne bi allo soxna si wala sëñ bi allo allo waaw soxna si noo tudd fay wootee ginnaaw bi ñu nuyoo maa ngi wootee fii Garaayof ci marché bi soxna si yaa ngi si marché bi jamono ji bari na ay jafe-jafe yoo xamante ni yéen a koy dund rawatina eh. Eh, ci eh, jàngoro ji fi am di coronavirus marché bi yëkkati nañ ko yéen ngeen di toltalaan maanaam ngir dundal seen njaboot nan ngeen di dundee situation bi jamono ji ci biir kër yi waaw nga nuy nga nuyul ma Fally mm-hmm. mi ngi lay fay allo ah, wax moom wax mënatuma wax ci marché kon mu mel ni jafe-jafe dégg euh, déggante lan am ak euh, soxna soosu ñu leen di xaar rek euh, ci 88 628 05 05 yéen it ngeen ñëw bokk si waxtaan bi li ñuy waxtaanee mooy yëngu-yëngu jigéen ñi nan la si jàngoroy coronavirus amee njeexital ñuy waxtaanee nag jigéen maanaam tamit si njàmbaarteem ci biir kër ñi si jàppale gi si jàppale góor ñi mën ngeen si ñëwaat yéen it bu dee am ngeen si gis-gis wala xalaat ba tey ñu ngi leen di xaar ci 88 628 05 05 kon soxna Sall madame Sow ba tey ñu wéyandil euh, euh, waxtaan bi sànq yaa ngi may juñu ni yéen jigéen ñi daa euh, si seen njàmbaarte fexe woon ngeen ba seen marché bi ngeen am li nga xamante ni moo di école di di forme jigéen ñi waaye dafa def ay wàllum alphabétisation ngeen dem ba jamono joo xamante ni coronavirus daf ko wàññi bu baax daf ko wàññi bu baax ndax mhm. dañoo dañoo dañoo dajale woon maam famille famille mhm. parce que nee nañ laajte nañ leen képp koo xam ne bëgg nga def alphabétisation ñëw ñu def alphabétisation mhm. ñu ay ay formation sur la tra euh, transformation du lég des légumes. Mhm. ak euh, euh, kii savon yi. Mhm. yooyu yëpp ñu ngi ko doon programmé pour def ko mais bi corona bi ñëwee. Mhm. daa wàññi yooyu yëpp activité yooyu yëpp daf ko wàññi. waaw ni ngi ak suñu am nañoo am ay partenaires yoo xam ne mooy comme Viego. dañoo am partenaires yooyu partenaires yooyu tamit ñu ngi si jàppale bu baax a baax a baax. ndax dañ ñoom itam dañ ñuy dañoo dañoo ñëw pour former ñu ci yooyu ma lay wax noonu mooy savon yeeg. Euh, fruits et légumes yi. Mm-hmm. en euh, même en même temps encore euh, defal ñu encore formation si alphabétisation bi. Mm-hmm. yooyu yëpp ñu ngi koy def ci biir marché bi. Mm-hmm. xam nga marché bi moom laa doon wax sànq ma ne marché dafa am ay ay ay ay ay ay fa nekk. parce que xalaat yoo da boo koo ci laajte ku ne dina la gënal xalaat yoo xamante ne yow yow mii yow mii nga xamante ne yaay yow intellectuel nga sax yow si boppam. xalaat yooyu xalaatoo ko woon. dégg nga parce que marché bi boo xoolee maanaam boo jëlee femmes yi nga xamante ne ñi ma ñoo fay liggéey. famille kenn ku ci nekk li ngay di ngay doxalee sa biir kër ak li ngay doxalee ci marché bi ba nga xam ne sa doom du jàdd fenn mhm. kon xam nga loolu wax dëgg yàlla du du lu yomb du yomb loolu du lu yomb mhm. waa marché Mame Diarra nag euh, moom laa ne wax sànq man la ay jàmbaar lañu gis nga fan yi comme ni ñu ko waxee ni ko euh, Mansour waxee léegi mhm. ni leen mairie sonalee mais teewul ñu bàyyi benn yoon parce que xam nañ li leen xaar kër ga xam nañ ne xale yaa leen di xaar euh, añ baa ngi leen di xaar reer gaa nga leen di xaar en même temps location baa nga leen di xaar mhm. loolu yëpp a nga leen di xaar kër ga mhm. moo tax bàyyiwuñu benn yoon ñoo ngi daw fu ne di daw mhm. bu le bu waa mairie ñëwee jël seen bagage yi bu subaa ñu ñu lepp xaalis dem jëndaat yeneen ñëw toog lañ jaay xam ki nga xamante ne leboon nga ko démb ñëw feet ki nga xam ne lebaat nga ko tey xam nga loolu dafa métti te te doo jaay lu ko ko lu ko jar xam nga loolu dafa métti mais buñ ñu fekkonte ne jàppale woon nañu comme niñ ko sama naataangooy waxee bu ñu jàppale woon jox ñu benn site boo xamante ne ñun ñëpp dañ fa mën a nekk wala ñu xool utal ñu place boo xam ne ñu ñëpp dañu fa mën a nekk wala bu fekkee ne yóbbu nga ñuy fii nga yóbbu ñuy fii mm. ah l'essentiel mooy na nañ delluwaat ci marché liggéey bu fekkente ne mënuñu ko ba mënuñu ko mm. fi nga xam ne fa lañ nekk nañu jéem a organiser mm. ñun nangu nañu nañu jéem a organiser bu ñu organiser ñu teg suñu suñuy plate ñu toog ñu jaay ñun daal l'essentiel li ñuy bañ mooy toogaay toogaay bi li ñu bañ dangay xool euh, Grand Yoff politique gu ma nag mais day xool Grand Yoff jeune Grand Yoff yi boo toogee boo génnee fii tey boo demee ngoon nga gis kenn ku nekk ñu ngi seen seen coin teg seen taas seen kaasu ataaya seen ataaya di ataaya mm-hmm. parce que ñoom amuñu liggéey amuñu fuñu jàpp mm-hmm. ñi leen a dimbale mooy seen parents yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci marché bi di liggéey mm-hmm. kenn ku ci nekk yow sax xaalis bi ngay dajale pour dem fay sa école doom da nga nga bëgg ëllëg kooku jàppale la da nga bëgg ëllëg kooku jàppale la mais kooku bu fekkee ne amul liggéey amul ci li mu jàpp kooku nan la lay jàppale da ngay delluwaat ci marché bi sa doom bu jigéen boobu ngay fayal école day delluwaat ci marché bi mm-hmm. wala mu ñu mu mm-hmm. loolu la ñuy bañ nag marché ma marché maam jaar loolu la ñuy bañ moo tax nag nañu may nañu may foo xam te ne nañ a jàpp mm-hmm. di ci liggéey nga ngeen mën a suñu njaboot bi nga xam te ñoo nekk ci ginnaaw dimbali suñu njaboot suñu suñu doomi jigéen yi nga xam te ñoo sëyeguñu ñoo fa ñu ngi ñu ngi jàng def ay formation ñoom bu ñu génnee xëy na yàlla def dina jàppale dootu ñu toog ci mbedd bi da xool na mbedd bi métti na lool de mbedd bi ñu toog ni di jaay métti mm-hmm. na trop surtout ngeen koy bokk ak góor ñi eh, ñàkkul góor ñi am na benn eh, bët boo xamante ni dañ leen koy xoole maanaam yéen daal chaque fois yi a gën a nekk ci suuf ñoo gën a nekk ci suuf te nag da ngay xool nag nawet bi fa suñu kaw lay di ñu dóor amul mbaar mm-hmm. du kanting ñun si bi la ñu ne waaye nawet bi taw bi ñuy dóor ba ba ba nawet bi jeexee naaj bu tàng bi ngelaw bi feebar bu nekk mën nañu mën nañu fa mën nañu fa def mm-hmm. mais ak suñu suñu suñu jàmbaarte ñu ne feebar bi li lay bañ ñun dañuy jéem a éviter ko mu loolu moo fa loolu loolu moo tax euh, gisoo benn cas su su suñu marché bi hmm. amul benn cas ndax ndax wax dëgg ne yàlla ay jàmbaar la moom noonu laa wax sànk ndax dañuy suñu saabu ak suñu suñu ndox di raxas ba set wecc hmm. lépp loo xamante ne si seen doole bopp la amul kenn koo xamante ni jàppale na leen si suñu doole bopp la ñuy demee kenn jàppalewuñu kenn ñëwuñu fekk ñu jox ñu benn mbusu omo ñun ñoo jënd suñu saabu jënd suñu omo teg suñu ndox ñu ñoo ko fay def hmm. léegi nag bu fekkee ne loolu yëpp ñu ngi koy def nag wax dëgg na ilaa la ndax dëgg na yàlla ñu amuñu amuñu lu ñu ko ko loo bëgg mhm. nga am lu nga jël fa ne mhm. nañu jàppale bu ñu joxlee sit nañu jox nañu nañu organiser ñu mën a toog. Mhm. ñu jàppale ñu liggéey fa. Mhm. waaw mhm. organisation boobu ngay wax est euh, warul tàmbalee ci yéen jigéen ñi ñi nga xamante ni yéenay euh, yor seeni i activité activités yi ku nekk sa la ngay jaay yaa ko xam est-ce que tamit laajul yéen ngeen organiser wu maanaam euh, def groupement wala lu mu mën ci doon xam ni bi ngeen waxee benn baat ngeen di yëkkateendoo mu aj mu egg ci kilifa yi ngir ñu mën a saafara seen seeni i jafe-jafe. ñun doogu ñu ngi ci loolu ñu ngi ci. Euh, parce que ak suñu partenaires yi ñu yor mooy waa Wiego ñun ñu ngi ci loolu ndax ñoom jàppale nañ ñu ba nga xam ne defal nañ ci suñu GIE ñu ngi ak suñu GIE kon yooyu foog naa foo buntu boo fëgg fu ne dinañ la ko ibbil waaw defoon euh, organisé wu nañu def nañ suñu suñu GIE euh, di def moo tax moo taxoon ñu am sañ-sañ def ay forma wax la ñun nañ nañ defal ay formation mhm. gaa formation yéen ñëw ko parce que corona bi lu bëri da buntu yu bëri daf ko daf ko daf ko yàq fu mu ne nii mhm. waaw mhm. mais wax dëgg na yàlla def nañ defal nañ suñu GIE mhm. euh, waa Mass Mame Diarra wax dëgg na yàlla nee ay jàmbaar lañ ay jàmbaar GIE quand même euh, góor ñi dañ siy jàpp dëgg yàlla parce que fu nee góor nee nañ jigéen liggéey bi benn loxol benn benn la war a doon ngir mu mu gën a am doole waaw GIE GIE ba jigéen yeeg góor ñëpp la jigéen jigéen yeeg góor ñëpp ñoo bokk GIE mais benn GIE bi la waaw kon euh, ba tey mbokk yi di fàttali yéen seen émission bi nga xamante ni waa Piscam moo leen ko euh, jagleel sur lëkkaloo ak ñii di waa ambassade bu France ak waa URAG ji kuréel gi nga xamante ni moo ëmb rajo communautaire yi nekk euh, ci Sénégal tey li ñuy waxtaanee mooy njeexantal coronavirus ci yëngu-yëngu yi nga xamante ni jigéen ñi ngi koy amal mun di bokk nag ci programme bi nga xamante ni dañuy xeex bépp bojjante boo xamante ni maanaam bépp boddi compte boo xamante ni ñi ngi koy teg ci kaw jigéen ñi 88 628 05 05 ngeen di def ngir bokk ci waxtaan yi yéen jigéen ñi nga xamante ni yéen nekk si yaay na xam ci marché yi wala seen buntu kër yaa ngi teg sa table ak ci loo mënti jaay ci loo mënti yëngu yaa xam nga nekk ci bureau ba nga entreprise ba ci lu mu mënti doon daal émission bi nga bokk kon mu mel ni ah, am na ku nekk ci ligne bi soxna Salimata ñu jël ko doogay ah, weendi allo mbokk mi allo allo allo oui soxna si nuyu nan la waaw alo allo oui ñu ngi lay dégg bu baax soxna si. waaw soxna si naa def. sant alhamdulilah. allo oui soxna si. waaw maa ngi lay dégg bu baax. ça va na nga def man la Xadijatu wan Xadi wan. soxna Xadi ñu ngi lay déglu. man la Xadi wan waa marché bu ndaw waa. Hmm, d'accord soxna Xadi ñu ngi lay déglu ak situation bi fi mu toll nii ak li ngeen di dundu si biir marché bi. lu metti nag la ñuy dund lu metti metti. Hmm. lu mat vingt ans ëpp vingt ans ñu ngi ci marché bi. Hmm. mais xam nga marché bi booy xool ñun daal booy xool bi. Mm. sonn nañu daal ñu jàppale monsieur le maire ñëpp ay njabootam lañ. Mm. yaakaar nañ ko ci wóolu nañ ko ci nañ jàppale ay jigéen lañ. Mm-hmm. xam nga toog ci mbedd di jaay muy taw ak sa bagage nga neexul. Mm-hmm. ne ci naaj mënu sa nga ne ci naaj bi tam neexut. Mm-hmm. loolu yëpp lañu ñun daal lu ñu gënal daal ñu jàppale gën ñoo gën a jàppale mooy suñu góor. mooy suñu càmmiñ. wax dëgg yàlla yaakaar nañ ko bu baax nañu yërëm ñun ay jigéen lañu. ay nawleen ay jigéen lañu. ñu jàppale te yàlla tax allo allo oui soxna Khady waaw man na Sali Sali na maa ngi koy sant di ko gërëm mm-hmm. waaw ñun na ay jigéen la ñun daal ku ñu jàppale daal la wut mm-hmm. waaw kon mu mel ni euh, soxna Khady rëcc na euh, soxna Sali euh, si dynamique boobu ba tey la la ñuy wéyandil ak euh, jigéen ñi wax dëgg yàlla seen njàmbaarte ak li nga xamante ni moom la ñuy dund si jàngoro yi si jamono coronavirus. Mm-hmm. sànq yaa ngi koy wax comme mu mel ni jamono jii barina na ji ñoo xamante ni dañu dem au chômage. Mm-hmm. ñii toog seen euh, buntu kër te amaana la nga doon am sa marché ba ba toogee sa buntu kër doo ko am kon économiquement euh, jigéen ñi mën nañ wax ni elles sont à terre. à elles sont à terre. Mm-hmm. ndax da ngay xool li nga doon gagné si marché bi sax au moins lu ndax ne fa nit ñi dañ fay dajaloo. nit ñi mm-hmm. maanaam nit ñi dañ fay kii dañuy mm-hmm. nekk day ñëw jënd dugub dem. li nga fa doon sax au moins mën na la amatoo ci amatoo sax li moitié ba. xaaj xaajaat bi sax amatoo ko. dëgg la ndax da ngay xool euh, boo toogee sa buntu kër. ñi euh, ñi la ñi a ñi la war a ñëw euh, jënd ñi war a ñëw fekk foofu jëndal jënd doo ci gis kenn kon ñooy ñëw kenn benn ñaar ñett ñooy ñëw jënd nga toogaat encore xaaraat bagage yooyu encore nga yeeyaat suba bu ko defee loolu moo tax ñu daw si ñëw si marché bi mm-hmm. wax dëgg neex yàlla sonn nañu mm-hmm. sonn nañu jaayatuñu dañoo amatuñu dara mm-hmm. bor yaa ngi rey nag boole ko bor yaa ngi rey bor yaa ngi rey ndax da ngay gis bor sànq am na ko wax sànq nee na boru pëlëfu tey borom pël Fuuta yi seen xaalis ñëw dañu lebal ci marché bi mm-hmm. nga jël ci loolu dem jënd bagage mm-hmm. ñëw nag amatoo loo ko fay fu mu ne ne ay làqatu nag ah mm-hmm. fu mu ne dañuy daw di làqatu ndax bu amatoo lo ay jàmbaar boo demee ba nga xamante ne gor nga dem ba nga xam ne dañ lay toppal ak ci ay bor te daa amatu amaloo woon kenn ñaar dërëm ay jàmbaar lañu ñu amul amaloo woon kenn ñaar dërëm léegi ñu topp dem ba topp la ci ay bor wax dëgg ne yàlla fu mu ne ne am yoratuñu dara dara dara métti na trop sax tro trop Mhm. di fàttali rek ni soxna Salimata Traoré madame saw moom la ñuy dalal moom mu euh, bokk si euh, GIE bi nga xamante ni moo nekk fii euh, ci marché yëpp sa jëkkër ñu gën ko xam si marché ya Mame Diarra nekk fii ci Grand Yoff ñëwaa na bu baax dégg ngeen ko ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom waa waa marché Mame sa jaara maam waa marché Mame Diarra ñu ngi koy am ci biir jàngoro coronavirus tàmbalee ba léegi ak yëkkati ki nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati uh, ña fa nekk ak dóor dàq bi nga xamante ni ñoom lañ nekkee ak ñi nga xamante ni ñoo di waa uh, mairie bi waaye it uh, tagatembe surtout bi nga xamante ni seen seen yëngu-yëngu taga tagatembe na ko kon soxna Salimata nu jël ki nekk si ligne bi allo. mu mel ni kooku daw na euh, ñu ngi koy xaaral ni mu ñëwaat ci 88 628 05 05 88 628 05 05 tamit di jaajëfal bu baax euh, duñ leen fàtte suñ internet yi nga xamante ni ñu ngi suivre à travers euh, li nga xamante ni moo di suñu live yi ñuy def sur YouTube wala sur Facebook di jaajëfal suñu mbokk internet yi ba tey soxna Sali mu mel ni li ñu dese si ay waxtu bareetul mm. si wàllum genre maanaam. Euh, jigéen njàmbaarteem euh, ci li nga xamante ni moo di waar yëpp ci biir euh, réew mi seen lëkkaloo bien sûr wala seen jàppale li nga xamante ni ñi ngi koy jàppale góor ñi jigéen ñi nekk ay jàmbaar fëkk dënn jigéen ñi nekk sa waar wa dinañ mhm. si ñëwaat xaar ñu jël ki nekk ci liñ bi allo mbokk mi allo salaamaaleykum salaam waaw ngi sant bu baax sëñ bi yokkal baat bi tuuti man la Mouhamed jaakatu fëgg jaay marché sëñ Mouhamed ñu ngi lay déglu. ñu ngi leen ziar bu baax. delloo ziar bu wér. ñu ngi ñu ngi rafetlu émission bi. jaajëf yéen ak moom am contentement ci yéen trop. jërëjëf. waaw li ñuy wax moom wax dëgg yàlla franchement pour la. Mm-hmm. lii moom yàgg nañu ko seen ci yéen. Mm-hmm. waaw ñu ngi ziar nag wax dëgg yàlla am nañu contentement ci moom trop. soxna Salimat. waaw soxna Salimat ñu ngi lay ziar bu baax. Mm-hmm. alhamdulilah. jërëjëf léegi li bëggoon wax mooy ci marché bi. waaw. man daal maa ngi ñaan. bu fekkee maanaam man na man ñoo may ñu liggéey mhm. ñu may ñu liggéey ndax fii ay ndaw fi nekk ak jigéen mhm. te man seen góor laa te jigéen yi gis naa li ñuy daj ci ñoom li ñuy daj mhm. ñii si napp yi ñii si bëccëg yi ñii si lépp yaa ngi dégg allo allo yi ñu lay dégg bu baax waaw léegi daal man li may ñaan monsieur le maire ma jóg bu ñu mën a may ñu organiser ñu ñu toog liggéey ñu mbay ñu yaa ngi comprendre fekkee nag mënuñu loolu ñu xool feneen foo xam maam duñu si mën a yóbbu ñu suturu dans suñu doole hmm. ñu yóbbu ñu foofu ndax man mii di wax yow kër laa yore damaa yor soxna yori doom yori jaay yor baay hmm. bàyyi dëkk Touba léegi hmm. nañu may ngir yàlla ak rasuul ñu bàyyi ñu liggéey bàyyi ñu organisé ñu xool ñu bàyyi yoon fekkee yoon yi moo tax ñuy wax ñu bàyyi yoon yi ak mbalit yi mbalit yi tamit maanaam ñu bàyyi yi mbalit yi ñu bàyyi si marché bi loolu tamit am na ci solo yaa ngi dégg man daal loolu daal laay ñaan di ko jaajëfal nag émission bi trop mm. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf waaw am na fii ay nit ñoo fi nekk kenn sàcc fenuñu mm. daan doole yaa ngi dégg mm. te man daal lu laa lu may wax émission bi maa ngi nuyu soxna Sali jaajëfal di leen di bi trop kontaan naa. jërëjëf jërëjëf di ko jaajëfal moom sëñ bi euh, Mohamed comme ni doon wax sànq rek euh, marché bi ñëpp a fi ñi nekk Dakar ñi nekk bitim ñi nekk euh, fudul Dakar nee na moom njabootam ña nga ba ba ba waaye ak jamono ji fi mu toll nii doy na waa daal waaye ñàkkul kilifa yi dinañ day saafaral ci lu gaaw ba jàngoro yu jub fi waaleykum salaam sëñ bi. kàlla soxna Salimata mi ngi lay dégg waaw maa lay maa waaw Aliou. maa lay waa kay jërëjëf jërëjëf. bàyyi li nga am jàmm bu baax a baax. sant yàlla bu baax. ah di wax ne Tra euh, ñu gën ñu jàppale rek. waaw mm, waaw waaw. nga xam ne marché bi bëri na ndaw yu fi nekk mm-hmm. it. te jigéen ñi fi nekk ñoo xam ne suñu yaay kese lañ. dëgg la. tey bëri na tey jigéen ñoo xam ne seen doom yi lu ñuy ak ñoom lu ñuy faratu jut loolu sa lañ koy amee dëgg la ñun ndaw yi bëri na loo xam ne li ñu koy amee tey suñu wàjju ci àll bi tey fii lañ fii lañ koy jëlee di ko bokk ak ñoom mm-hmm. te xale kese lañ liggéey rek lañ jëm nag lu ñu gën a mën a jàppale bu ñu taxawoo rek ñu jàppale ñu waaw ndax yëkkati bu ñu ko yëkkati nii match yu bëri kii nañ leen mais dañ leen mujj bàyyi kon dama jàpp ne xanaa benn suñu match bu ndaw lay nuyoo te ñu xale yu fi nekk mën nañ ko toppatoo bu jëlee tey mu bañ a kilim ak mu bañ a am problème koñ bi lu lu mu ko jaral ñu jaral nañu ko mhm. pour ñu am ci jàmm rek ndax liggéey kese ndax liggéey kese lañ jëm mhm. kon nag gën a mën a taxawal gën ñu jàpp rek ñu jàpp nañu jërëjëf di leen dëgg nag di leen di leen ñaanal jàmm rek di wax ne lépp lépp benn pexe bi ñuy defar pour mu sotti rek ñu jàpp nañ si nañ jërëjëf di wax na waa jërëjëf waay jërëjëf di ko euh, jaajëfal moom euh, Aliou kon mu mel ni soxna Salimata Traoré heure bi daanaka euh, jeex na ndax li ñu desee bariwul ñu bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak suñuy auditeur waaw jërëjëf jërëjëf soxna si ñu ngi leen di bu baax mën mm-hmm. nag dama waroon nag gërëm sama borom kër waaw dama waroon commencé gërëm sama gërëm kan euh, ndax ndax ndax dëgg naa jàppale na ma mhm. jàppale na ma bu baax a baax gërëm samay waajur mhm. euh, gërëm samay mag samay rakk gërëm waa marché maam jaara mhm. ndax ndax wax dëgg na yàlla luy jën njaag ñoom ñooy njaag euh, maa leen di gërëm bu baax di la remercier bu baax di gërëm tamit borom kër yi parce boo nekkee seen seen quartier boo nekkee ci biir seen koñ nekk ci biir quartier bi wax dëgg na yàlla xoolewuñu benn yoon bët bu bon bët bu ñaaw mm-hmm. xoolewuñu bët bu bon mm-hmm. ndax bu bi lii amee bi ñu yëgatee ñoom seen bopp dañoo ñëw dañuy jàppale mm-hmm. ñu ngi gërëm borom kër yi nga xam te ñoo fa nekk ñoom ñëpp ñu leen di gërëm leen sant boo boo limee da ngay juum ñu ngi leen di gërëm leen di gërëm maa ngi gërëm tamit les euh, xam te ne groupe boo xam dama ci bokk mooy les femmes braves bi nekk wakaam ñoom tamit ay jàmbaar lañu comme ñun li ñuy daj ñoom la ñoom la ñuy daj euh, maa leen di gërëm di gërëm tamit di gërëm waa marché Mame Diarra yëpp yëpp amuma ñoom ke amuma ci seen fay ñoom ñëpp amuma seen fay maa leen di gërëm commencé si A ba ci Z ñoom ñëpp maa leen di gërëm. Mm. waaw di di ñaan nag monsieur Madiop di ko jaan monsieur le maire monsieur le maire loo mun jàpp jàpp ci ndax ay jigéen ñoo fa nekk ay ndaw ñoo fa nekk ñun ñëpp bu ñu amu amuñu lu ñu gënal. ndax ñi ñi Dakar maanaam Sénégal ñëpp ñëpp ñu nekk ay ay ay ay ay inter ay euh, euh, bureaucrate mun ñoo mm. nekk bureaucrate mm. il faut ñeen ñeneen ñoo xamante ne ñooy nekk ci suuf ñun nag ñoo nekk ci suuf yàllaa ñu ko jagleel nañu jàppale ñun marché bi la ñu am marché bi la ñu am marché bi la ñu am pour faj suñu soxla hmm. marché bi la ñu am pour pour dimbali suñu borom kër hmm. pour dimbali suñu njaboot hmm. pour dimbali ñi nga xam ne tam ñoo nekk ci biir ci ci koñ yi ndax da ngay xool koo xam ne dafay jógee këram yorul ñaar dërëm mu ñëw ci marché bi bu ñëw ci marché bi lépp lay yóbbaale mm-hmm. ndax boo ñëwee ci kii Sénégal dafa bëri sutura mm-hmm. da ñëw ci kii ne ko ah man de wax dëgg yàlla dugg ama ama eh, ceeb mm-hmm. ama nangam ñun dinañ ko lijjanti mu dem këram kon moo wax dëgg neex yàlla wax dëgg neex yàlla nañu mu jóg jàppale ay jigéen lañu ñu ngi koy ñaan daan eh, eh, jaayantuñu moom moom doole jaay defo defuñu ñoom xeexu ñoom moom xulawuñu ak moom dañ koy ñaan moom mooy suñu kilifa mooy suñu kilifa nañu may nañu nañ ko dañ ko ñaan rek nañu jàppale mm-hmm. nañu jàppale ndax ay jigéen doo nga fa nekk mm-hmm. ay jig ay jigéenam ñoo fa nekk mm-hmm. ay yaayam a fa nekk ay ay ay ca maanaam ay raq ba fa nekk nañu jàppale loolu daal mooy sama wax mujj euh, message bi ngay lancé jigéen ñi ak euh, dëgg yàlla ñu bañ a découragé tamit ak fii réew mi toll si jàngoro ji waaw wax dëgg ne yàlla nañ bañ a découragé li fi ñu newoon ba tey nañ fa ne fa ñu newoon nañ fa ne nañu bañ a nañu ko liggéey bu dul fii bu bu baaxulee fii fële dina baax nañ ci jàpp rek na ñit ñi liggéey ñun liggéey la ñu xamee jigéen boo gis ku ne muy ku ndaw ki muy ku mag ñun ñëpp liggéey la ñu xamee ay jàmbaar lañu nañu bañ a baisser les nañu liggéey incha allah rab lépp dina baax incha allah jërëjëf di ko jaajëfal moom madame Sow soxna Salimata Traoré ci waxtaan wu am solo bi nga xamante ni tey uh, séq na ko ah ñun uh, ci uh, thème bi nga xamante ni moom lañ ma fàttali ko muy njeexantalu jàngoro coronavirus yëngu-yëngu yi nga xamante ni lii di coronavirus na ko moom nag ak euh, madame Tra madame Sow Salimata Traoré euh, nekk fa nga xamante ni moo di euh, marché yëpp sa jëkkër di marché Mame Diarra nekk fii nga xamante ni moo di Grand Yoff di jaajëfal képp ki nga xamante ni woote na si biir émission bi di rafetlu intervention yëpp macha allah di ñaan yàlla rek ci nam gën a gaawee jàngoro coronavirus yàlla nag teel a génn ci réew mi ba ku nekk dellu si sa yitte ca nam waree te doo ci am benn jafe-jafe yéen mbokk yi nga xamante ni yéen doon déglu Afia ñu ngi leen di jaajëfal Euh, ci safa beeg euh, faale bi di leen fàttali ni émission bi ñi ngi ko doon am ci suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa piska ci partenariat bu na am ak ñi nga xamante ni ñoo di waa ambassade France ak euh, ñii di waa ñii di waa URAC di kuréel gi nga xamante ni ñoo ëmb rajo communautaire yi nekk fii ci Sénégal si programme bi di initiative genre maanaam nan la ñuy def ba suqali lépp loo xam weddi bi ak kàddu yu ñaaw yi ñuy teg ci ndoddu jigéenu senegal te tegul ci benn diine waral kuréelu ndaw yu góor yeeg jigéen ñi am taxawaay bu wér ngir jëlee ko fi lii war a tax askan wi yëpp boole seen doole ak seen gis-gis ngir sàmm àq ak yelleefu jigéen fépp fu mu mën a ne ci Sénégal xibaar bii ambasadu France lëkkaloo ci ak URAC ci ndimbalu projet bu Piska moo leen koy may.